للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغرى وإني أحمد asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk seetaankat yi yéen a ngi TV ci seen émission rencontre avec euh, ñu dalal tey sunu mbokkum euh, taalibe di sëriñ Maodo Malick Ndiaye euh, fekk ko fii ci këram di ko nuyu di ko ziar di ziar sunu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoo nga safoo Maawul Hayaat TV ànd ak groupe Maawul Hayaat communication ñoo ngi ziare bu baax sëriñ Mountakha Bachir ak mboolem kalifa yi diine yi nekk ci biir réew mi yëpp di leen ziare di leen ñaanal te sàkku si ñoom ñaan di ziare bu baax ak ndokkeel sunu sang bu tedd bi Mbacke Maoula xayaat di ko ñaanal gudd fan lool gu ànd wér lool te yàlla sàmm ko taar ko te matalu ko yeneen ci diine ji ak ci taalibe yi noonu itam ci lañ koy ñaanale mbooleem kilifa yi diine yi ci biir yëpp te ay mbooloo yàlla doole leen sàmm te te dëgëral leen te kàttanal leen te mottali seen yéene ci taalibe yi di ñaan li itam taalibe yi yàlla mottali seen yéene ci kilifa yi te lépp rek dëppoo ak ngërëmal sunu borom subhanahu wa mbokki talibé kon ñu bay suñu gan tay Serigne Maodo malik ndjay mu nuyo ak yeen Serigne assalamu alaykum wa rahmatullah. alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Cheikh mbay Fari ñu ngi lay nuyu di la dalal di la wax eh, dalal jamm fi ci daara yi Cheikh Ahmadou Mbacke Maoul Hayat jannatul Mahwa Zac Mbao. Mhm. di nuyu kat yëpp ak ñi déglu di ziar ñépp te di ci jiital nag Cheikh Ahmadou Mbacke Maoul Hayaat mi nga xam ne moo waral jotaay bi mhm. waaye nag di fi nga jaarit ci jotal ko ci mboolem kilifa yëpp mhm. ci Sénégal ak ci bitim réew ci lislaam mu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne Maodo Malick Ndiaye kon ni ngeen ko leeralee sang bi nga xam ne moo waral jataay bi fekk ko fii tey ci këram ci ZAC Mbao fas yéene waxtaanee jaar-jaaram ak Serigne bi waaye balaa loolu Serigne Maodo ñu bëggoon nga présenté wu sunu mbokk uh, seetaankat yi uh, wax ñu say jaar-jaar sam njàng ak itam uh, say jaar-jaar daal yëpp yi nga xamante ne dina baax ngir ñu gën a xam sunu gan tey mooy kan fan mooy ay jaar-jaaram euh, lan la jot a jàng lan la jot a liggéey loolu itam dina baax sëriñ Maodo Malick Ndiaye. ginnaaw tur bi Maodo Malick Ndiaye euh, samay waajur di Seydina Omar Ndiaye ak Adja Maguette Fall Adja Maguette Fall mu ngi cosaanoo dëkk bu ñuy wax Ngaay Mexe te dëkk boobu ci laa ci laa juddoo ci laa gane àdduna euh, sama wayjur bu góor it mu ngi cosaanoo ci askanu léwu kon foofa ngaay fa laa juddoo fa laa yaroo mën nañ ko wax bu dee ci wàllu njàng mi nag euh, maa ngi defee njàng mu maanaam njëkk sax may dem école primaire jàng naa njàngum alxuraan mm-hmm. waaye nag ci daara yi nga xam ne day nekk ci ci ci dëkk yi rek boobu li ma ci fàttaliku ñu ngi bi nekk imposité cité impôt domaine lañ koy wax ci Dakar euh, def naa fa def naa bu xëy na benn at la wala ñaari at bala ñuy dal njàng primaire it maa ngi ko benn xaaj bi maa ngi ko defee ci Dakar ba tey fu ñuy wax Berthe Maubert nekk ca Dakar Plateau ginnaaw bi sama wayjur bu góor ñu affecté ko Kaolack euh, fa laa yeggalee sama njàng primaire ba def concours entrée en sixième bi ci cité bu ñuy wax Bongré Kaolack ci village d'enfants SOS ginnaaw loolu njàngum mi ci topp secondaire maa ngi tàmbalee ko it lag ci Sàmm tur école bi la laa jàppatu ginnaaw loolu sama wajur bu ñu delloo si affecté waat ko Dakar ci laa ko ci laa yeggalee lenn li ci CEM Adama Diallo nekk euh, amitié la walla karak dem ginnaaw loolu ndax foofu troisième la yem ginnaaw loolu ma dem. Seydou Nourou Tall def fa ñaari at jeexalee ko nag école privée euh, macha allah nañ koy wax nekk Sacré-Cœur foofu laa amee sama bac. lan moo tax nga jógee Seydou Nourou dem macha allah continuer def terminal. waaw loolu bokk na ci li ko sabab li ma sàkku dama sàkku woon ci sama wajur ndax lenn li aw jàppin la woon.

est-ce que mën nañ xam euh, ban jàngalekat moo la gën a marqué sixième ba terminal ndax xamul jàngalekat yoo xam ne ba léegi jàpp nga seen tour ak marqué bi ñu la marqué. waaw man nag day yàlla dafa def nag fi mu nag jàpp ni ay tour mhm. naa ne yomb maanaam léeg-léeg du ma yomb lool. ci mhm. ci ci ci souvenir waaye daa am na ci koo xam moom kanam gi moom jàpp naa ko kooku ki woon na ma te loolu euh, fële la woon village d'enfants SOS Kaolack. Mhm. lu tax mu marqué woon loolu ndax dafa dafa amoon caractère lool daal. Mhm. waaw dafa amoon caractère lool daanaka xaw a bàyyi xel lool daal. Mhm. waaw mhm. xëy na keneen ki euh, bu dee ci macha allah sax foofu la woon prof français la. tur bi nag laa laay jàppatute damay bañ wax tur juum. waaye daal ku ku ku xorom ku amoon ku mënoon maanaam amoon pédagogie la daal mhm. mën nga ni ku xorom woon la ci ni muy jàngalee mhm. kookit kookit marqué na marqué na ma ci ci ci wàllu mhm. ginnaaw bi nga amee bac fan lañ la orienté waaw ginnaaw bi mu amee bac sama yéene moo doon def formation en transport logistique moo tax ci la yàlla dogalee ma dem euh, école de formation daa koy wax bu ñuy wax wala institut Sainte Jeanne d'Arc poste bac waaw poste falaa defee BTS transport logistique ñaari at yàlla dogal ma am ko ginnaaw bi nag ci laa sabablu génn dem bitim réew mhm. euh, France mhm. njëkk ci dëkk bu ñuy wax Bordeaux ci UIT Montesquieu falaa defee licence en transport logistique ba tey mhm. yàlla dogalee

bi yàlla dogalee loolu wéyit ma am xalaat ak yenn ni hmm. ngir compléter sama formation yëpp damay bëgg a def école de commerce loolu it ma sabablu yàlla dogal ma amee école bu ñuy wax euh, euh, tur lay xaw fàtte tuuti waaye bu hmm. nekk Saint-Omer hmm. Esquip Esquip seen nekk Saint-Omer foofee la def ñaari at def euh, euh, formation en négociation achat euh, école de commerce def formation ak option négociation la ndax mhm. dafa amoon achat ak négociation vente ma def négociation vente loolu daal foofu laa jàpp daal sama formation ci sama ni ma ci sama bëgg-bëgg ak parcours bi ma ci bëggoon am ni matal mat na ci ci ci fànn yooyu yëpp waaw. Mhm. ci wàllu woowu foofu la. yan bërëb nga jote stage ak yan bërëb itam nga jote liggéey. waaw bu dee ci stage yi euh, li ci ëpp Sénégal laa ko defee ndax dama doon def bu ma amee stage doon occasion boo xam ne dinaa mën a ñëw Sénégal. Mhm. nekkaat fi tuuti ci way jur yi ak gisaan mbokk yi bu ko defee am na ci. ñaari stage ñaari at yoo xam ne stage yu maa ngi ko def ci société bu ñuy wax SNAT société nationale des auxiliaires de transport sama nijaay bu ñuy wax Mamadou Guèye di denc sama rakku yaay bu ñuy wax Adja ay Fall mhm. moom moo ci entreprise am la waaw ñaari at ñaari at yoo xam ne ñëw naa ci laa defee ci laa defee stage mhm. stage beneen bet am na boo xam ne France laa ko defee mooy bi mujj ci boobu école de commerce bi bi ma bi ma def ba jeexal ko laajoon na stage boobu maa ngi ko def ci dëkk bu ñuy wax Cambrai mm-hmm. ci société bu ñuy wax euh, François Bernard Chocolatier mm-hmm. waaw waaw foofu laa ko defee defe naa juróom juróomi weer wala juróom benn weer war na koo mat am na it sax lu jiitu loolu defe naa tuuti te at mi jiitu première année commerce boobu maa ngi amee stage bi Barcelone. Mhm. maa ngi ko defee Barcelone def naa fa it ñetti weer. ci mhm. ci wàllu stage wàllu liggéey bi bu dee wàllu liggéey. ci biir mhm. France xëy na am nay liggéey yu yoo xam ne liggéey yu étudiant lañ koy wax. yooyu daan naa ci def su ma amoon occasion daan naa ci def waaye nag bu dee ci wàllu liggéey nag moom ci gannaaw am njàng liggéey liggéey. professionnel boobu man bi ma defee stage Cambérène boobu yàlla dafa dogaloon ci biir nekkinu boo ma nekkoon foofu ma amoon yeneen pas-pas ak yeneen yëg-yëg yoo xam ne dafa sabab ma bëggoon a dellu senegal hmm. bëggatuma woon a wéyal sama sama sama nekkin France ndax jàppoon naa ne booba ci jamono booba ak ci hmm. gisin bi ma amoon ni li ma bëggoon dund ci sama diine hmm.

jëkk am liggéey def naa fa defe naa ñetti weer ñaari weer jàpp ñetti weer ba yàlla dogal ne fii ma nekk tey di CMA CGM di compagnie euh, maritime boo xamante ni ay français la basé wu Marseille di di di di compagnie bi njëkk wala ñaareel ci wàll woowu hmm. ñu ci gën a am doole maa ngi ciy liggéey boobu depuis 2000 2012. waaw depuis avril 2012 ci ren ci atum bi sax tey lay def fukki at. mu nekk foofu. foofu seen liggéey ndax mën nañoo xam ci ban anam lay lay demee. waaw suma liggéey yàlla dogal na mu ngi mu ngi dem ci wàllu logistique transport bi nga xamante ni daanaka li ma jàng sama ci laa ci laa yëngu. lii sababoon ma dem ci sax mooy bi ma nekkee bi ma njëkkee ci société bi ma nekk COSLO ab diir tuuti yàlla dafa dogal. booba sax nekkin wa xawoon naa metti tuuti ndax eh, xëy na société boobu doon société bu mag société bu yam la boo xamante ni ñaare day def ni xëy na li ci ëpp ci xeer suñu kenn nit daal mooy koy doxal mooy mooy mooy mooy jël daal décision bi yëpp ni mu bëggee noonu lay doxee mm-hmm. boo defee daanaka kenn du ci am xalaat kenn du ci am sañ-sañ kenn du ci mën a daal pour nga pour nga évoluer ci daal day xaw a jafe. Hmm. loolu nag dooloon na lu xaw a méttee dund ci noonu ba sax yeggoon naa ci bëggoon na bàyyi bàyyi bàyyi liggéey boobu donte matul donte amoon leneen. Hmm. waaye nag yàlla def comme am naa kilifa yi te te tey déggal ko te di sàkku ci moom waxtu wu ne ay xel ak i xalaat ci mbir mu mën a doon. Hmm. bi ma ko waxee loolu. yooyu boo yéenee bàyyi yooyu mënuma ah loolu kat kenn du ko def hmm. moom bala ngaa boo jàpp yàlla dogalee nga jàpp ci dara bala nga sañ ngaa sabablu leneen waaye rek doo ko da hmm. yàlla dogal nga sabablu leneen boo amee leneen nga bàyyi lépp lu ko gën nga bàyyi ni ma nag mën ngaa sabablu leneen ci yàlla dogal nag mat may sabablu leneen ba ñu woo ma bis boole ma ak ku ñuy wax sama sama benn ajaa ay defar ba ma doon wax hmm. suñu benn mbokk boo xam ne mu ngi woon SDV euh, biñ fa biñ ma booleeg moom ma dem fa moom ci moom ci laa amee ay sabab ba ni ma sama CV ma yónnee ko ci société bi ma nekk tey ba bis ñu woo ma ma ñëw entretien bi ñu ñëwee ñu wax ma kat ni ma dañoo am yéene tijji benn terminal terminal bi sax tijji na waaye dañoo am yéene maanaam mu am benn cellule transport. ay camion daal wut ay camion ngir mën a livrer ndax conteneur yi faw camion moo koy mën di yóbbu ko indi boo xam ne nag société bi day day ndëkk day nekk ci société bi ndax sax am nañ yeneen transporteur yoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom waaye ba tey dañ leen di soxla woo leen waaye bii nag dañoo bëgg ci biir société bi boppam mu am camion yoo xam ne daanaka day mel société bi ko moomal boppam buñ mm-hmm. ma ko waxee nag euh, wax ma yéene ji loolu moo bi ñu ma ko waxee ma xam ne lii ah xëy na mën naa cee mën naa cee indi sama sama sama sama sama sama sama mm-hmm. sama expertise wala boog sama xam mm-hmm. ci la yàlla dogalee ñu waxtaan ba juboo ma ñëw fa ci avril 2012 ñu taxawal loola te loolu it man maa yor ba tey jii. Mm-hmm. macha allah. Euh, kooku nag mooy Serigne euh, Maodo Malick Ndiaye gis ngeen kon parcours bu brillant bi macha allah jàng na fi mu war a jàngee euh, ba am entrée en sixième am njàngam ci collège ba am BFM wéyal am njàngam ci lycée ba am baccalauréat jot a jàng Sénégal ñaari at dem bitim réew wéyal am njàngam ñibbisiwaat ci Sénégal di def liggéey bi nga xamante ne moom mooy transport logistique muy lu am solo. kon Serigne Maodo sunu lo xatu waxtaan moy dañu bëggoon xam si ce ce vie religieuse avant euh, ngay ak Serigne bi manam naka nga doon dundé ci islam ak itam euh, tarixa bi nga xamantene mom nga nek naka nga ko doon dundé dal ñëk ngay am Serigne di ak mom ci ci walu diine ñëk may dajje ak Cheikh Ahmadou Mbacke Maoul ndax. foofu mooy maanaam kii bi li nga xam ni daal moo sabab mhm. lu bari soppeeku mhm. ci jàppin ak ci dundin ci diine mhm. njëkk loolu nag samay wayjur ay jullit lañ li ma xam ci samay maam yëpp ay jullit lañ ci lislaam gëmoon naa li nga xamante ni ñu ngi koy wax yépp ci wàllu pas-pas ci diine ci yàlla nga xam ne moom mooñu moom ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy gën ni mbindéef di Muhammad ibn Abdullahi mm-hmm. ak gëm ni ah dinañ danañ fi jóge maanaam ci jàppin ci jàppinu yi ñuy indi nga xam ne ñu ngi koy jàngale ci diine yëpp lenn lu ci nekk bañuma ko bañuma ko woon mosuma ko bañ jàppoon na ak jàppandi woon na loolu ci man ma jàpp ko waaye nag taxu it ba tey mu def jeexital deug deug bi nga xamanteni passeport bobu kep ku ko amé jeexital lolu war naa war nga ko war nga ko dund sejuf, mm-hmm. ndax boné yalla kat moy bour war naa nak, ci say jëf war naa ci say wax war naa ci say melo waaye nak ah bu né ci wàllu julli mm-hmm. mi nga xamanteni dañuy wax ni boko taxawalé taxawal nga diiné waye su mabbe mabbal nga mm-hmm. julli googu kat daan naa ci taxaw léeg-léeg léeg-léegi daan naa ci ñàkk taxaw mm-hmm. yi nga xamante ni ci wàllu ndigal yi la ci julli comme kem julli waaye yeneen yeet woo rek yooyu yëpp léeg-léeg mënoon nga ci di taxaw léeg-léegi mën nga ci di bañ a taxaw mm-hmm. bu dee ci kon loolu lépp day def ni ñaari foo taxawut ci liñ la digal rek bay mel ni yaa ngi ca lañ la tere mm-hmm. léeg-léeg waaw bu ko defee ci wàllu àndandoo xëy na daanuñ seet yi nga xamante ne dinañ yokk ci suñu diine ak ci suñu pas-pas hmm. nga xam ne yu ne yu ne yoo xam ne rek ndaw ndaw léeg-léeg boo xam ni amul kilifa gu ko mat di ko teg ci yoon dana ci dugg hmm. yu ci bari duggoon nañ ci hmm. waaw yu ci bari duggoon nañ ci kon dundin woowu mooy dund gi ñu doon dund ci wàllu diine njëkk li ma wax nag yàlla dogal ñu daje ak sëriñ bi ba mu soppi lu bari nag ci ñun ci wàllu pas-pas bañ yegg ci buñ nee yàllaay buur kat loolu feeñ ci suñuy wax feeñ ci suñuy jëf feeñ ci suñuy mer mm-hmm. ban tarixa nga doon dund ak itam naka nga ko doon dundee waa ci wàllu tarixaat mm-hmm. gannaaw diine lislaam ji ni ma ko waxee nii wàllu tarixaat murid al muridiya murid Serigne Touba mm-hmm. moom lañ jàpp moom lañ jàppoon te loolee li ma wax ci ci leer rek moo moo nekk ci lii ndax koo foofet ni sëriñtuwaay Touba sama kilifa Serigne Touba moom taxawaayam yëpp njàngaleem yëpp lislaam la ndax loolu la wax dafay lislaam kon ci pas-pas ci kàddu ak ci jëf ak yëpp képp koo xam ne murit nga mhm. daanaka boo jëfee rek lislaam la lislaam gu leer gu set goo xam da koy dund lay doon mhm. kon loolet na ma ca waroon taxawet kon mel na ni taxawewuma ci noonu hmm. waaw ndax loolu loolu loolu dañoo dugalante waaye newul loo xam ne dañoo waroo kon taxaw gama wax sànq rek ci ci ci diine taxawaay boobet moo jeexi tamit rek ci murit li nga xam xamante ni doon naa ko doon naa naa wax ni moom la hmm. waaw hmm. Eh, ndax itam daan nga sàmmoon sàmmonteeg waxtu julli juróom woor weeru koor ndax itam eh, daan nga góorgóorlu ci taxaw guddi jàng alxuraan Euh, jàng xasida dem màggal wala gàmm ndax yooyu itam doo defoon nga ko farata diir bi nga nekk Sénégal. julli moom daan naa ci daan naa ko taxawal léeg-léeg léeg daan naa ko bañ a taxawal yee ca toppaat yëpp noonu koor jànguma alxuraan moom ci loo xam ne daan naa ko daan naa ko def mm-hmm. bi daal li ma ci xamal moom moom téere téere ba alxuraan mm-hmm. teg ci barab mën nga koo. man nga ko man am daal ay teggi nag i war ma jëmale ci moom waaye nag tijji ko di ko jàng wala di ko seetantal loolu moom daan daan ah yàpp ma de fu ma ko daan defee moom mhm. njàngum xasidaat sax moo ci xawoon a tane ndax foofaat am na xasida yoo xam ne gannaaw dañuy lu ci ëpp dañ koy dañuy wut ay dañuy am luñ ko yan loo xam ne mhm. daana ñaar sa njariñ da cay da cay ne mhm. moo xam tey ñu ngi mat la bu sifa yi nga xam ne li ñuy wax ci wér léeg-léeg xëy na bu yàlla dogalee nga tawat wala dara sam xel mën naa dem si nga nga jëfandikoo waaye nag mm-hmm. sabab loolu doo nga koy sabab mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daal ci li ñuy wax ci yenn xasida yi yéen cay wax xëy na léeg-léeg dana ko danaa ko mokkal loon yegg ci mokkal ko sax mm-hmm. nga xamante ni koy mën di wax ngir aaju jooja wala ngir sabab loolu bu dee lu jëm ci ay wàllu événement religieux yi ci gamok ci ci ci ay magal magal dan na ci dem hmm. dan na ci dem waye nak ah dan na ci dem ab événement la won rek bo xamanteni yalla yàlla dogal ma and ak ñi dem bu ma ay occasion dem bo demet ah dëgg yàlla dana neex ndax da nga da nga da nga dajeeg nit ñi da nga hmm. da nga da nga xewlu da nga naan da nga contane manam lool lool it hmm. rek daanaka mo doon tax ñu dem tabasket bu jotté yoy xoti yére maanaam aada daal yëpp daal da ngay gis ni aaday jëf ji daal rek mhm. ci nga ci nga doon nekk di ko def waaye leneen doolu nekk maanaam pas-pas daal boo xam ne da ngay gis ni lii kat ak waar la ak fàttaliku la ak dellu ci yàlla la ak ak ak ay xéewal la yooyu daal xéewal nag buñ koy wax xéewal yoo xamante ni doo ko yamale rek ci ni ah bu ma defee ren bu déwénee mu am lu ko ëpp yooyu waaye xéewal la daal ci dellu ci yàlla doon bu maanaam sabab yo xamne man sa ruux man na ci yaat mhm. leer leeru yalla bo xamanteni dana tax nga gëna dund sa l'islam gëna dund sa diine gëna dund sa pas pass ak yooyu yëpp daal pas-pas yooyu daal dootu la nekk mhm. Mhm. Eh, tubaarkàlla serigne euh, Maodo Malick Ndiaye euh, mu melé euh, dem nañ nak ap jamono nga ak serigne bi di Cheikh Ahmadou Mbacke Maawul Hayaat yàlla na fi yàgg ndax mën nga ñëwaat ak ñun sunu mbokk seetaankat yi eh, ci jamono boobu nga dajek sëriñ bi eh, ci maanaam mm, du ma ne lu ko sabab sax waaye ci ja contexte eh, bi nga xamante ni ci nga dajek sëriñ bi lu jiitu loola xaw ma ko musuma ko gis musuma ko dégg musuma xam sax ku ko xam mhm. kon nekkul mm, lenn loo xamante ni dañ ma koo tegal ci moom di ko wax wala di ko indi wala di ko misaal ba tax xëy na ma jug def tey dem ci moom waaye nag li ma wax ci stage bi nga xamante ni yàlla dogaloon na ma di ko def Cambéré ci sama jeexital yi jàng bi ma demee Cambéré dafa tombe tuuti ak weeru koor weeru koor weeru koor boobu euh, li ma wax weeru koor nag bu jotee léeg-léeg daan naa woor weeru koor googu bi mu dikkee ma ma ma ma góorgóorluwaat it ci fan yu njëkk yi damay woor donte nag koor gi metti woon na ndax mu ngi dafa tombé woon ak tuuti été te ku xam été France bis yi day gën gudd lool. Hmm. boo defee daanaka ci misaal julli suba wala boog waxtu yi ngay war a yeewu ngir def xëdd comme ni ñu koy defee fii daanaka ay trois heures da koy doon. Hmm. mën na ko doon waaye fi mu ne gée euh, timis ñaari mën naa dem ba daanaka dix heures ci ngoon dix ci guddi hmm. di bëgg di bëgg di bëgg di bëgg a jege neuf heures jàpp di jàpp mën a jëm dix heures ba pare booleeg tàngoor aw tàngoor bu métti hmm. kon loolu métti na ci ku ci amul pas-pas rek ñaare mën nga caa bañ mën nga ko bañ a def waaye na fan njëkk yi ñaare da xaw a kii bi yàlla dogalee loolu nag Cambérène contexte bi ci ba tey yàlla def muy dëkk boo xam ne xaw ma ko dëkk bu bees la ci man. Hmm. ñi fa xawma ma fa kenn man rek la yàlla dogal ma am fu ma ne foo xamante ni man rek maa fa nekkit nag. Hmm. am na fa nekkandool sax ñu ne ñu dëkk foofu waaye nag xaw ma leen waaye daal man maa nekk ci sama sama barab man kese ci biir loolu daal benn benn bis ma am yëg-yëg daal yoo xam ni sax daan na ma dikkal njëkk loolu ci ni léeg-léeg lu may yooyu may wax ñàkk julleeg yéeg nekk dugg ci yu bari waaye léeg-léeg di ngay xëy daal bés rek nga ne ah man mii kat war naa góorgóorlu hmm. waaw nga xam ne day mel ne daal jamono sellal lay doon daal yoo xamante ni daal da ngay da da nga xool daal li nga mën a def ni nga ko mën a defee rek nga defee ko noonu ci moo xam dangay dangay dangay ngay da ngay yor sa kurus di di wax ay baat wala ngay déglu ay xasida wala ngay def ci yooyu daal hmm, hmm. yëg-yëg boobu nag bi ma dikkalee tam ba tey ci weeru koor boobu ma ni ah man de war naa góorgóorlu kat daal di jug dal di jàpp bi gannaaw xel mi bi mu ñëwee di ñëw ba mu yàgg nag ma ni xaar ma jug daal di yeeslu julli ñaari ràkk daal ni damay fas yéene tuub waaw daal di ci yéene yéene ko daal koy def mm-hmm. bi ma ko defee nag mu mel ni ah buntu bu bu bu beeskat ubbeeku na ma ni nag léegi Eh, naka laay dundalee nag léegi kon samay waxtu ma ne kon naay jàng ci mbiru diine nga xam ni sax xëy na njëkk loolu jamono yi nga xam ni daan naa wax ni jamono yi kat damay damay góorlu yeggutoon ci loolu ci ci jamono bi ci jamono bi bi bu mujj bi ci wàllu gëstu wàllu diine bi ma tàmbalee gëstu bi te gëstu bi maa ngi koy defee ci loolu ndax xaw ma ku may jàngal xaw ma ku may waxtaanal waaye nag damay dugg ci internet bi rek hmm. bu mu duggee ci internet bi daal di xool tappe ay ay ay moo xam lislaam baatub lislaam nii rek nga xam ne dina am yu génn ngay dugg bu dee lu ñuy liir la ma liir ci bu dee lu ñuy seetaan laat ma di ci seetaan ñuy wax ci wàllu ci wàllu pas-pas ci yàlla di wax ci wàllu gëm mooy lan di wax ci wàllu farata yi maanaam eh, cinq piliers yi di ko expliquer ñi di ko sara nga xam ni loolu may tàmbali di ci gëstu lu bari mm-hmm. bi ma tàmbalee loolu ma mu mel don lu lu yees tàkk ci man ndax li ma wax am na am na loolu jàppoon naa ko ci ñu ne ah yàlla yàlla yàlla yàlla yonente bi yonente bi julli woor waaye nag duggoon ci gëstu yooyu ñu koy détaillé ngay ngay ngay di loo indil julli tey fara tey lan la ah, sunna yi lan la koor nuñ koy defee yooyu yëpp ñu dugg di ko détaillé yooyu nag bu ma ko daan lii damay gis ni ndeke lu bare bare bare bare daanu ko bàyyi xel. Mhm. kon mbir mi dafa yees ci man. yow tamit lu bari léegi di tàmbali di mel ni day woroo ak man ni ma jàppe woon ak ni ma daan dunde ba ci loolu laal na sama pas-pas ci wàllu murit ndax léegi man ni ma jàppe woon murit gi mooy ni ma wax sànq rek ci indi ko ci wàllu lislaam bu matul rek sa murit daanaka du man a mat mhm. ndax dafa da maanaam dañoo dañoo dugalante néewul loo xam ne daa nefee lii nefee waaye murit dëgg mooy jullit dëgg mm-hmm. waaw ndax pas-pas la maanaam jëf yi da koy da koy dangay wax baat dund ko mm-hmm. fi ne loolu rek mooy mooy murit lislaam nag bari na ñoo xamante ni lislaam la waaye nag yegguñ ci gëm te mm-hmm. loolu sax xam nga boo xoolee alxuraan moo ko wax ndax am na ñooñ bi ñu gëm nañ suñu borom ne leen déet bu leen ni gëm ne leen nangu ngeen boo ko doon wax nga xam ni tey pas-pas bi nii danga ko téye ñu wax la yàlla nga ni waaw ñu ne la ku bind asmaan nga ni yàlla waaye nag fi mu ne yow gëm mooy dund mbir ndax gëm faw day am lu koy feeñ lu koy feeñal lu koy màndargal te loolu ci say jëf lay tukkee ak ci say nekkin ak ci say melo waaye nag fi ne ñu bari ñu ngi wax ni jullit lañ ñu bari ñu ngi wax ni murit lañ waaye nag yëgguñ ci dund loolu mm. fi ne nag murit nag mooy dund loola rek kon mooy gëm aji gëm dëgg bu ko defee na kon li may gëstu loolu rek damay gis ni ci saa si man dama jàppe kon ndeke man dund ma murit ki man naa wax sax noonu ko noonu dund ma sax nag dund ma ko waaye nag léegi bu fekkente ni ak murit moom li ma nekkoon la loolu mu ëpp naa nekk hmm. loolu moom ndeke ne maanaam nekk ci maanaam daal waroon na daal wala boog daal bokkut ak daal lii ak murit dëgg-dëgg ginnaaw bi ma ko xamee hmm. ba léegi loolu sax dafa defoon ci jamono ci diir ci ci waxtu woowu tembe rek yegg naa ci tuub mel ni daal damay tuubal yàlla ci murit gi ma doonoon hmm. ndax ndax gis ni daal lii moom ne du dara ci te na ma ko jàppe woon man ak na ma koy dundee ak na ma ko fooge woon hmm. loolu ci biir loolu kon gëstu googu ma nekk ci tàmbali muy mel ni nag daf may gën di xëcc waaw may gën di bëgg di di di xóotal ci loolu waaye nag li ma wax li may jàng jàng jàng jàng yooyu yëpp ñuy wax ñi dañuy julleeg ñi dañuy defee ñi dañuy defee man lu ci ne rek dama koy bëgg dund damay bëgg daal lu doon rek lu may xam nii rek waaye nag day doon lu may dund nga xam ni ginnaaw tuub tuub googe ma wax sànq ci wàllu murid ni ma ko jàppe woon teewul nag am na lu newoon ci man loo xam ne sama biir bu ma taa bu ma teewalee murid ci teg sëriñ bi mm-hmm. teewul mu ci teg boobu sëriñ bi sëriñ Touba waaye teg it sëriñ Salih ndax boobu moom mu ngi dund jamono boobu sama xol mënta nangu nit ñi liñ nekk du noonu kon ci biir loolu kon mel na ni kon man maa am jafe-jafe man sama wetu bopp ci ni ma jàppee ci sama pas-pas ci ci murit ak la ma dundee woon murit ak la ma jàppee woon murit waaye ñii nag moom sama xol daal mënta génn gi maanaam tuub googu xam nga day mel damay bëgg a génn ci loolu waaye nag sama xol moom mënut génn ci ñii mm-hmm. ndax jàpp ma ni ñii moom mënut jàpp ni ñii liñ nekk du noonu dëgg kon ma nekk ci loolu nekk ci diggante diggante boobu ndax man bëgg naa dund yi tey dund mbiri xam naa ne lii may jàng ñu ma koy wax nii rek fa ay forme la ay forme la ñu may indi tegal la ko yoo xam ne mën nga cee nekk fexe ba nekk ci ni nga ko indee ci ci forme yi waaye nag yegg ci mbir mi moom nga di ko di ko di ko dund man daal dund mbir laa bëggoon waaye mm-hmm. néew moon rek ci bëgg japp rek ñu ni li ni la li ni la li ni la ndax it nak ñak dund gi dama koy xamit dama koy xam ndax léegi danaay mer ci lo xamni du dara danaay danaay yek sama xol ay rag rag yo xamanteni hmm. donte ma ngi def form yi donte ma ngi def yooyu yep waye sama xolit mi nga xamanteni mu ngi na ci man ndax ndax it mu am luma ci jàppoon jamono joju lo xamanteni ku ñuy wax Asanal Basiri hmm. ci la liire won mu mu wax ko ndax boobu bi may liir yegg naa ba liir ci loolu mu ni jàmm bi de bu ko yàlla na di dimbali da koy wan ay ayibam koy wan ay ayibam waaye nag loolu xol ci wan gi mooy sa mm-hmm. basiira sa biir xol yow da koy dangay ngay yëg da gis ndax fi ne dañuy gis ni fi ne ñu ni di nga gis koo xamante ni day yor ci xolam ki ñaan goo xam ni ni mu toll ki yëggi na dayo mm-hmm. waaye fu ma ngay wër koo xamante ni daanaka as toq la ci yor moom loolu lay gis waaye gisu ko sam mhm. kon kooku ba xolam moom suñ borom wanu ko yëy bam mhm. moo tax mu ne ci ëy bi keneen moom waaye nag man boobu yegg naa ci ëy bi ne ci man moom day mel ni damay janloo moom kon léegi li may wax ci bëgg a dund mbir ndax léegi yonent bi dund mbir mooy lan su boobaa ci masala yonent bi kat dafay wax ni du ngeen du ngeen doon ab jullit mukk wala seen gëm du mat mukk feeg li ngeen bëggal seen bopp bëggul ngeen ko seen morom mm. waaye léegi naka nga mën a ne jullit nga ni gëm nga yonent boobee ay waxam nga ni moom moo féete kaw wax yépp ba pare yow ok ay situation am yow nga yëgal sa bopp yow ni mankat lii sama xol neexu ci kon loolu yow xam nga ni sa jullit matut mm. sa gëm matut dundoo mbir mi kon loolu donte yaa ngi taxaw di julli donte yaa ngi def yi ngay def yëpp xam nga ne am na lu des ndax léegi julli googet newul lu ñuy def nii rek ci forme waaye nag day mel ni boo ko seetee ba ci biir ay garab la yoo xamante ni dafay ñëw ngir dindi yooya ñuy def nga xam ni boo doon julli tey di ko saxal faw da ngay yëg ni nga xamante ni bu doon da ngaa sa ayib yooyu feeñ na ci yow dana feeñ ci yow ba tey nii mu ngi wàññeeku. Mm-hmm. dana feeñ ci yow ni mu ngi wàññeeku dana feeñ ci yow mu ngi gën di wàññeeku ba mën naa boo yëree sa xol doo ko ci gis te bu boobaa nag la yonent bi wax boo ko liiratee rek ci nim ni tey mas loolu ma indi ci bu nit amee dara nga yéene ko mel ni yaa ko am da dund loolu nit bu amee dara day mel ni yow mii yow yaa ko am yow mm-hmm. kon loola moo xam nga doo ci mën a def benn taxawaay boo xamante ni du noonu sa xool du ci mën a yëg lenn du noonu doo lekk ba dara yàqal la ko di ko sëriñ bi di waxee nit ki war ngaa fexe ba defar sa xol ba do lek ba dara yakal ko do nelaw ba kenn yakal ko do tok di xalat kenn di tit ak fërfëri ak rëb-rëb te loolu yëpp nag ne ñun ñu ci bari ñu ngoy dund te donte ñi ngi taxawal yi nga xamanteni yep ñu koy wax ci walu diin mm-hmm. kon bëgg dund mbir yoy man fofu la ci yeggu bi nga xamanteni nak nag ma ngi ci continuer di di di di di def gëstu di def ay xalat ba genn ba jóge kàmbare sax wat Saint-Omer booba bi ma delloo Saint-Omer nag c'est Cambérène nee naa xaw ma foon kenn te yàlla dogal na passeport bi tellement dugg tax na bëggumaa xam sax foofu kenn waaye bi ma delluwaatee fële nag nga xamante ni ña ma xamoon fa lañ te am na nu ma daan dundee ñoom am na nu ma daan nekkee ñoom ba ma demee lii ma yóbbaale ci passeport sababoon na moom daanaka damay doon dama dama damay beru rek di wéet di wéyal la ma daan la ma daan bëgg-bëgg bi ma amoon ak la ma daan donte na ñee ñi ngi may songaat ngir bëgg xëy na jàpp ndax nit moom ni nga ko gisee rek nit ki moom waaye nit li muy dund ci biiram moom nga mhm. bañ a yegg ci gis ko waaye nag boo ko boo ko xamoon lu mu yàgg-yàggit bu ñëwaatee ka ka nga gisoon rek yow nga jàpp ni moom la waat waaye fekk lu bari mën naa soppiku ci biiram te yow doo xam ñoom it xamuñu woon loolu ndax yëggu moon ci waxtaan ci ñoom waaye nag xëy na ñii ma ci bëgg a jegewaat gis nañ ni kii kat mel na ni am na daal lu xew nga xam ne yàq na sama diggante yu bari ak ñu bari. Mm-hmm. waaye nag taxut boobu ma bàyyi ko xel ndax dëgmal naa lee moom te yàlla ak ma ci defal kàttan ak tawfeex delluwaat Cambérène boobu nag ma nekk ci nekk ci nekk ci loolu ba génn génn guddi yeeslu rek nag <laughs> ma toll. Mm-hmm. <laughs> yeeslu bi mm-hmm. yeeslu bi tax ma taxaw ci loolu yàlla dafa dogaloon boobu maanaam yeeslu moom dama koy defa defa defa ba sama loxo yi. day day day day day day def ay ay kii sax ndax jeexitalu ndox mi. ndeysaan da ngay yees lu bari rek. Mm-hmm. waaw di sant yàlla bu baax yi nag. ba ah, ma ci ma gën a ubbeet ba. Mm-hmm. daal lu bari gën na ko jàppandal. Mm-hmm. loolu li bu ko defee nag loolu may nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci ba benn guddi ma yàlla dogal ma ma pare nii tëdd ci lal bi daal di jël ordinateur bi teg sama kaw. non la doon def pour ngir xool internet hmm. beeg yooyu tuuti ab diir ci facebook ma dugg ci gis ab page jàppatuma page bi sax xawma lu doon waaye gis cliqué ci vidéo ni yam ci vidéo ma cliqué ci bi ma cliqué rek daal mu tàmbali di wax ay kàddu hmm. ci jëmm ju taxaw kaalawu sol lu weex nekk ci barab boo xam ni juma juma lay nuru walla jàkk juma moom muy wax. Mm-hmm. xam na ni am na ñu muy waxal ndax yaa ngi dégg nit ñi nit ñi waaye moom moom ngay gis muy wax wax ju wax ju wax ju tàng sax joo xamante ni mu ngi wax ci li ci jàpp. Mm-hmm. tuuti ci dañu fiy jug. Mm-hmm. waaw dañu fiy jug waaw dañu fiy jug. ci yooyu noonu nga xam ne di wax di wax daal wax ju tàng joo xam ne ci yàlla ak daal ni ñu war a delloo ci gëm yàlla ak ak ak pas-pas ak yu mel noonu loolu bi ma tàmbalee rek dafa mel ni daal dafa am lu lu lu lu lu lu dugg ci sama biir rek waaw nga xamante ni daal def na ci jeexit joo xamante ni dund naa ko fi saasi dundi nu lu jéggi dayoon boo xamante ne li mu bàyyi ci man rek mhm. bi mu jeexee rek li mu bàyyi ci man rek mooy ni man daal li ma li ma doon sikki sàkkaak li ma doon weranteeg li ma doon jeexi jaaxaak lépp dafa teggeeku mhm. nga xam ne daal léegi man yéene ji ma amoon ci bëgg dund mbir mi yoon wi daal nee nañ mu muy nii yoon wi ngay jaar ngir dund ko mhm. mu leer nañ ñi ci man set wicc ci man waaye nag yoon wi mooy jëmm ji ba tey maanaam ci jëmm ji nii yow li nga bëgg a dund kii moo la ko mën a dund loolu mhm. te liy firndeel loolu ndax xëy na wax mbir nii baax na waaye nag firndeet am na solo tey jàpp moo ni sax tey jataay bi dinañ ko def mhm. ba loola di ci doon firnde mhm. mooy ni yëg-yëg bi bi ma ko amee fi saa si bi mu noppee rek ma am yëg-yëg bi nga xam ni fees na dell ci man dama gis boobu booy seetaan vidéo bi mu ngi bind ay kii yuy défilé nii am ci adresse email bu ci nekk ci saa si ma jël kii bi dugg sama email bind ab bataaxal bindee ko ci yëg-yëg bi ma rek baat yi mënuma cee dikkaat nii waaye xëy na bu yàlla dogalee xëy na man mii defe naa ne su ma delloo sama email yooyu ci archive bi mën na cee nekk xëy na yéen mën ngeen koo am ndax bindoon naa ko te yow mii la yàlla dogaloon sax mhm. defe naa ne bind nga tontu loolu ma wax ci sama yëg-yëg boobu mhm. loola di firnde ci lii ma wax ndax fa saase rek laa ko def ginnaaw bu loolu nag ci la yàlla dogal it nga tontu ma. defe naa jox ma numéro bi. yàlla def ma woo ko ba jot ko léeg-léeg buy wax léeg bu ñuy wax bu ñuy benn yoon wala ñaari yoon mos nañoo wax ci lu mel noonu daf may wax ni man de bi may bi ma bi ma koy woo mu moom fi mu fi mu toll booba nee na mu ngi seggante cinquante wala di génn pour. wala loolu nee ma booba. foofu laa foofu saa yi ma tolloote foofu sax nee na xelam day nekk ci loolu ma woo ko wax ko ba tey it yéeg bi ma am noonu la yàlla dogalee sunu hmm. ki sunu xamante noonu la yàlla dogalee ma mu boole ma ak mbokki taalibe yu hmm. nekk foofu kenn ci ñoom di Sëriñ Abdoulaye Lahat Touré hmm. ma doon dégganteeg moom bu bari nekk ci noonu ginnaaw bi nag mbir mi gën naa woyof ndax léegi xam naa ni kat léegi moom sama mbir moom li ma bëgg ci dund sama diine xëy na yàlla dogal na ma daje koo xam mën na ma ko def mhm. boo defee nag léegi gën naa woyof daal ci njëkk njëkk ni ma doon bëgg a dundee lu ne nga yenu ko lu ne nga bëgg caa yoon ma ne daal kuy tëñ tëñu yoon wa ni nga bëgg caa jaar mhm. te jaar ba mu yàggit nga ni ah fii kat gis leneen li nga ni li gën a dal sama xel mm-hmm. nga xam da ngay mujj yan sa bopp lu ne ba day mujj daal diis lool mm-hmm. lii nag yàlla mel na ni woyofal na nag wan la yoon ni nga war a dox dem mm-hmm. kon noonu la noonu noonu la demee xame bi ma nekkaat ab diir france ci sawolu bi ma la waxoon sànq ci gannaaw bu ma bëggee dund sama diine bëgg ñu ñibbi sénégal sawol boobu ma nekkoon ca ba yàlla dogal nag ci njëlbeenu wala jeexitalu 2011 2010 wala njëlbeenu 2011 ma daal di ñëw senegal Sénégal. Mm-hmm. ma ñëwee Sénégal sax def naa fi si naa defe naa ba mu am ay fan ci lay ci laay door a dem nag gis door koo gis ci daaraam ñuy wax jannatul firdaws si Kër Mbay Fall. gise boobu naka la demee woon ca ca bés boobu. waaw ci bés boobu. Mm-hmm. defe naa ne dama bi ma amee gannaaw ma amee yéene dem fa defe naa dama ko woo wax ko ko mu boole ma defe naa ak Serigne Babacar si euh, béy. Mhm. su ma juumut kon moo ma tegtal bi ma bi ma ki boobu tëngéej gi laa bàyyi kon ndax man samay waajur tëngéej fii lañ dëkk. Mhm. bi ma ñëwee falaa falaa nekk tëngéej laa bàyyi ko fii dem ñu tegtal ma tegtal ma ba ma yegg si Kër Mbaye Fall. Mhm. dibeer lay doon walla walla it mu nekk bisub gaaw ci takkusaan. wala dibeer takkusaan. fekk naa mbooloo mu bari ziar mel na ziar bu yaatu mu ngi am na bi ma ñëwee mu dugg fekk mu ngi toog ci boo duggee rek ku xam Kër Mbaye Fall am na salle bu ne ci suuf hmm. am na perron bu ne noonu ci ci biti mu ngi toog noonu ñi ñuy ziar ma ànd mbooloo mi di ziar bi ma ñëwee ba jub ko rek sax <laughs> yàlla mu ngi doogal bi ma ñëwee ba jub ko mu ni ah kii daal Maodo Malick la may xëy hmm. ma ni ko ankay ah, moom moom la ñu ginnaaw bi defe naa mu dugal ñu dugg ci saal ma dugg ci saal bi noonu ba ginnaaw bi ci la ñëw. boobu daal la yàlla dogal suñu gisante. Mhm. waaw euh, Serigne Maodo Malick euh, bi nga ne da nga ñibbi ci Sénégal euh, boobu say wayjur ak jébbul gi nga jébbul ci sëriñ bi loolu naka nga ko dundee ak say wayjur. waaw samay wayjur njëkk ñu ñëw ci jébbalu gi ma jébbalu ci sëriñ bi. Mhm. ñoom di leen njëkk sama wayjur bu góor sax. li ko njëkk xëy na jaaxal mooy yéene ji ma am ngir dellu si hmm. tey nag leeraloon ko it li tax ma bëgg a dellu si hmm. lan nga ko wax nga xam ne dama ko ne man mooy li ma wax sànq rek ci hmm. waxtaan yi que bëgg naa dund sama diine te jàpp naa ne fii ni ma ko bëgg a dundee mënu ma ko dundee foofu jooju la doo nga loon waaye du woon leneen te nag li ci xawoon a doy waar mooy tey li ma wax jàng naa te it wax dëgg yàlla bi may jógee fii di dem France moom daa dëgg bii ànd ak man ba bi ma yéegee ba Bordeaux ba fi may dal lépp mu ba ma dal ba mu dal ba mu dalal ma mhm. ànd ak man sax yi moom soxla daanaka boo ko doon wax yëpp yi am solo yi amul solo yoo xam ne mën naa ñàkk lépp mu jëndal ma ko mhm. ba nga xamante ne daal man nekki ma ma nekk foofu mu amul benn jafe-jafe mboolem nekki mi ma nekk France rek daanaka man amul benn jafe-jafe foofu yàlla dogal na loolu mhm. benn ndax lépp mu ngi ci doon taxaw lu ma aajowoo mu ngi ci doon taxaw di ko def te it xam naa ni ki wajur bu mu mën a doon am nga boo sañoon wala boog sa bëgg-bëgg wala boog da nga bëgg daal ak ko xam it tey mentalité bi Europe nga dem jàng nga opportunité yi bari mën naa am mhm. donte nag mën ngaa mën naa bañ a nekk ni ñu ko xalaatee waaye opportunité am na ci ku ko sababla te yàlla dogal ko Sénégal it contexte mi ku ne xam na ko dëkk bu bu naqaree am xëy na liggéey bu bu bu bu bëgg ni ko ni ko ni nga bu mel ni nga ko bëggee la. Mm-hmm. waaw loolu loolu it lu ci jafe la. Mm-hmm. xëy na yooyu yëpp na tax na xam naa ni xëy na awoon na ca jaaxle waaye nag moom li ma doonul ku dëgër koo xam ni dalay lay imposer mbir mbaa mu nek fa di jàppanteeg yow ak yow. Mm-hmm. da la wax lim lim xalat nga wax ko tay dana am amna tolérance xam ne man na muju mu dangol la li nga li nga li nga japp ta du jur ben fitna. Mm-hmm. Ah, kon kon lol lol lol la. Mm-hmm. bu dee ci walu sëriñ bi ñoom ñu am pas-pas lañ ñoo xam ñu bëgg lu baax lañ. ba taxna bima bi ba wax leen sëriñ bi te defe naa it njëkk na ñoom. ci ci ci ci ci wàllu vidéo yeeg site beeg yooyu. Mm-hmm. xam naa ñàkkul it am nañ ci ñoom it xool nañ ci wala ñu ñu yër ci. waaw xam ne bi ma ñëwee daanaka li ma wax sama gisanteeg sëriñ bi mooy seen gisanteeg sëriñ mm-hmm. ndax man maa ngi fàttaliku ci biir lool sax ba may dem Manar waxu daal boobu def naa 2011 am na daal ziar la xam naa ne ziar lay doon wala dara lu fa amoon bi ñuy dem. Mm-hmm. maa ngi ma ko ànd. te boo la ca toppaat lépp daanaka li ci yu bari xëy na sa jamono yi la la yàlla di dogal ay ay yitteeg tax daanaka lépp màggal ak deqeeg yu fi jaar rek ànd nañ ko ak hmm, hmm, hmm. ànd ko sëriñ ba tey jii waxtu ne ñu ngi jokkoo moom ñu ngi loolu tey di amul ci ñoom benn kàddu bu mos a jug ci luy nduru ni lii ma nekk ak sëriñ bi am nañ ca lenn loo xam ne neexu leen ca wala naqari na leen ca wala daal gis nañ ca lenn lu muy daal ak sant ak it di ma gën a ñaax sax nag mhm. ci ci lool mhm. kon noonu la ko yàlla dogalee mhm. damay ñaan it yàlla saxal loolu Maodo Malick Ndiaye kon xam naa di ñaan dëkk régi ñu déglu kàddu yi nga xamante ne taataan nañ ko ci wayjuru Serigne Maodo malik njaay di Serigne Oumar Ndiaye eh, déglu itam kàddu yi nga xamante ne jëlee nañ ko ci wayjuram wu jigéen di soxna Maguette ñu dem ci partie témoignage

bu baax bi sëriñ Saliou Mbacke di ñaanal ñépp jàmm ak gudd fan ak wér yàlla may ñépp jàmm ak tawféex euh, Maodo Malick nag pour ma wax ci moom yomb na trop ndax li tax mu yomb mooy doom bu baaxee mel ni war a mel nga wax ci moom loolu daf dul jafe parce que Maodo yaru na yiw na baax na xam na suñu cër jox nañu ko ba mu mat te manqué lu si dara nag li ko war tam si ñun xam na ko te mi ngi koy def te manqué lu si dara ñun daal dañ koy ñaanal yàlla rek kuddu fan ak wér ak sutura ñaanal njabootam ñu barkeel ñaan daal yàlla yëkkati ko ba ca kaw mais nag duma bàyyi te santuma sëriñam bu baax bi mooy sëñ du Mbacké Maawul Xayaat bi ko yàlla booleel mu baax lool ci moom euh, di ko conseiller di ko defal lu baax di ko wax lu baax teg ko ci yoon bu yiw teg ko ci yoon bu jub kooku moom dañ koy ñaanal te di ñaan yàlla seen diggante yàlla lafal leen seytaane musal leen ci cat mais sëñ Ahmadou moom na ko wóor ni sant nañ ko bu wér a wér a lépp lu mu def ci Maodo rek ñun xam nañ ko lépp lu si mën a def xam nañ ko moom def na ci Maodo loo xam ni ñun moom xam na ko Maodo xam na ko ñun ñi di waaye juróom xam nañ ko kon nag ñun sant rek moo ñu war dañuy sant bu wér a wér a wér

wax sa doom day mel ni sa bopp ngay wax lu bare soo ko waxee day mel ni jimaam waaye nag yomb na itam ndax euh, ki ñuy wax moo yombal yëf yi diine l'État. L'État mu del si Sénégal ba jàngee France ba pare am ay diplôme loolu du ma di ko rafetlu ba mu ne man day yow dama ko ne lu tax bëgg ñëw ndax diplôme yi nga am foo bëgg liggéey si Europe mën nga dem liggéey mu ne waa papa dëgg la waaye sama toogee Europe gii sama jàmm yàlla alhamdulillah ndax li nga wax de dalal sama xel ndax itam moo xam la ma ñàkk wax yëpp nga ñëw moo gënal kon nag ñëwal mu dégg ndigal ñëw ah li nga xam ne nag moo ëpp solo si parcours am mooy dajeem ak Cheikh Amadou Mbacké Maodo Xayat Cheikh Amadou de def na si suñu doom ci loo xam ne man mi bayam man ma ko soon def ndeyam itam di Adja market Fall mënu ko def moo tax mon mu ñu ko présenté nañu dama dama ko comme ne day wax dëgg yàlla dama bëgg a ci mom euh wax ñu ñu ne ko mo ne ñu dama bëgg ngeen ñu and fa ñu and ak dem mais bo ba legi tam de yalla xam na ne señ bi won nañ ciofel bo xam ne jéggi na dayoo jàppal ñu Maodo def si moom li ma wax euh, xam ne ñun ñii de wax dëgg yàlla euh, yéem nañu kon nag euh, jàppale ne daal seen mbokkum taalibe boobu di Maodo Malick Ndiaye ay waajuram gërëm nañ ko ñaanal nañ koy def nag xam naa lu bari lu ma sax yéen a ma xam ndax la muy nekk ak yéen sax fi mu ne xëy na du nekk ak ñun waaw kon nag témoignage bi la bëggoon def rek. ma bañ a guddal même si bañ wax leneen yi nga ma def foofu wasalaam ok jërëjëf bay fan jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci للمصطفى نويت ما يجدد سنته